nañ ko noté eh. c'est-à-dire que loolu itam élection day wane ni dafay wane adhésion mm-hmm. d'un peuple d'une population mm-hmm. à un programme ou bien sur kon kon nangu nga waxu Mahmoud Saleh yooyu waaw eh. nangu nga ko test la pour législative comme présidentielle 2024 bu ñuy wax ne président Macky Sall man nekkuma di commenter ay waxu jàmbur mm. ko moo tax ma lay laaj ndax man xaw ma fi ko waxee xaw ma ban cadre la ko waxee xaw ma ban logique de réflexion la nekkoon mm. man sama logique de réflexion laa nekk sama lecture de réflexion moo di élection locale dafay tax mbir mi dundaat à la base responsable ku ci nekk dellu si à sa base ñefe ci am na ay responsable yu nga xam ne mosu ñoo génn seen base loolu da leen di gën a renforcer mais day tax aussi parti mën a analyser waat parce que bu ñu paree dañu analyser résultat yi bu ñu analyser résultat yi dañu xam naka la ñu taxawee ci législative bi dañu xam naka la ñu taxawee aussi ci président mais bennoo boobu est-ce que tàmbaliwul peut-être di xaajaloo bu ñu gisee ay liste parallèle yoo xam ne le président de la république moo wax ca Paris ne yenn yi moom moo ko biniir mais yeneen yi moom àndu ci Mame Mbaye Niang toog fii ne moom listam bokk ci gis nañu Mary Teuw Niane gis nañu keneen ak keneen mais loolu est-ce que loolu aussi nekkul di fragiliser la coalition du ren la commencé 2014 mais liste yooyu parallèle yooyu amoon na mais taxul benn bokk yaakaar bi dafa gën a renforcer Abdoulaye Wilane bi ñu may wax nii. Hmm. bi nga soutenir mais 2014 demewul ci benn bokk yaakaar dafa dem ci list parti socialiste daf ko bennoo servir hmm. Kaffrine boobu la gagné. Hmm. Mata Si Diallo moo nekkoon tête de liste bennoo bokk yaakaar. <laughs> kon loolu du lu bees. mais dafay wane aussi yaatuwaayu président c'est-à-dire ubbeeku président président n'est pas dans une logique de de sanction. tout azimut. yaatuwaay wala diversion. non yaatuwaay c'est-à-dire que président c'est un démocrate. démocrate mooy ku nangu am am sa option am sa philosophie waxtaan ak nit ñi. Mhm. mënoon a tëju ci biram wax imposer mais. parfois c'est ce qu'il a voulu faire monsieur le ministre non il n'a jamais fait ça. mais mais lan la wax ca Touba lan la waxoon ci Touba. ca Kaffrine la ko waxee. waaw ca Kaffrine lan la fa waxoon excusez déglu leen ma comme que coalition la xam nga coalition amul ay dañuy def. investiture dans coalition day xaw a jafe. Hmm. mu ne comme que coalition bi règle yi nii lay demee. Hmm. déglu leen ma dinaa proposer lu nga xam ne yaakaar naa ci njëriñu. mais gox yu nga xam ne opposition amu fa. Mm. dara amu fa ñun ñoo nekk suñu biir. mais stratégie la aussi en politique. Mm. bu fekkee ñun ñu ngi ci biir boo tànnul kenn ki mu dem ci opposition ou bien nitam yi dem ci opposition. Mm-hmm. ñu téye suñu nit ci ñaari camp loolu rek la. vous créez la diversion loolu laa la cest dire que. maanaam maanaam marchand ambulant dafa marchand ambulant mooy gars yore seen affaire di dem. Mm. am na xam ne récépissé ambulant la ñu yor récépissé la ñu yor ku ku ku ñu rek ñu ne ko am sa récépissé. loolu te loolu tamit ça a été une grande stratégie politique. bu désavouer l' parce que l' opposition si suñ divergence yi la compté pour am dara. Hmm. ci dëkk yu bëri. mais loolu ma euh, récépissé ambulant yi. <laughs> donc stratégie nga ko jàppee. <laughs> marchand ambulant yi ma dellusiwaat. récépissé ambulant ma dellusiwaat fi ma nekkoon hmm. sànq. muy opération de désengorgement yi nga xam ne nii du yomb ndax gis nañu ñu bëri euh, réussiruñ ko maa la koy wax léegi ne ma da politique mais bu mooy seen deuxième mandat. Mhm. ba léegi si da ngeen lajj ci côté boobu noonu alors am na ñu nekk stade Léopold Sédar mhm. Senghor ay mécaniciens ay laveurs ñooñu instant bi ba ñu déggee mesure bi seen fit dalul lan ngeen di teg ci seen loxo ñooñu ak ñeneen ñu mel ni ñoom d'abord un damay lay fàttali ni xam nga Dakar quand même capitale dafa am maire Dakar mhm. Dakar boo waxee ñun ñu ngi laaj loolu kon ñi gérer capital bi ñi gérer capital bi loolu leen ci wax. Hmm. c' est parce que président de la gis na ni am na insuffisance ci gestion collectivités locales mu jël di ko pallier c' comme la gestion des déchets. gestion des déchets c' est une compétence transférée aux collectivités locales. Hmm, yow pourquoi waxoon ni opposition bi yore mairie Dakar moo laaj. waxoo loolu. mais dafa ñëw. bu ñëw loolu soo bëggee soo bëggee soo bëggee tamit ñu débattre ci mais compétence yoo xamante ne nii dañ la jox ay ay dañ la transférer ay compétence mais joxuñu la ay moyens yoo liggéeyee aussi. am nañu moyen. am moyen déglu boobu léegi ñu leen di dégg Dakar ñaata la. ba déglu ma rek wala wala bokk bàyyi bàyyiwu leen ñu liggéey parce que gis nañu fi ay maire de Dakar yi nga xam monsieur le ministre dañuy bëgg a ñëw euh, euh, defar Soham Wardini nii bëggoon na defar benn rond point euh, Abdou Abdou Karim Fofana à l'époque moo ko fa fekk jël jël jël projet bi dama ne la dama ne la ah dafa am déchets yi compétence transférée te gis nga tey UCG mu ngi mu ngi def lu nga xam ne mairie yi ñoo ko waroon def mu ngi koy def ci Dakar mu ngi koy def ci biir réew mi parce que ab président de la république munoo toog di seetaan di wax ni gox bi moo war def lii moo def fu war a faju mu war koo mhm. li am solo tey naka lay sénégalais yëpp di mobiliser wu ba Dakar set ba Sénégal set ba ku nekk liggéey sa liggéey te doo tooñ jàmbur. mais loolu danañ ko def bu soobee yàlla moo tax mën na la. tey boo leen di yëkkatee ñoom fan nga leen di yóbbu. parce que ñoom instant bi dañoo toog ci nen parce que amuñu fu ñu fu jëm loolu dañ ko réglé gis nga tey ci comité ñi ñuy toxal nga ut leen place te place boobu amoon na ay difficulté ci construction bi président jël na koppar yu war a am yëpp ba ñu yóbbu ko fa mu war a pare décembre janvier loolu danañ ko régler mais li am gën a am solo mooy du loolu mooy naka la ñuy renu parce que population day yaatuwaat day yokkuwaat naka la ñuy def ba askan wi approprié wu de cette volonté ba sénégalais ku ci nekk yow boo yeewoo ndey limet boo yeewoo sa buntu kër koo gis mu def lu dul yoon nga arrêté ko mm-hmm. boo ko arrêté wul nga signalé ñu ko war a ba ñun ñëpp ñu am comportement disciplinaire mais discipline boobu nag ñun ñëpp la. du askan wi rek. mais tey lan ngeen xalaat ci désengorger Dakar. parce que bokkoon na ci seeni projet gis nañ ñu taxawal beneen pôle urbain de Diamniadio mais dafa mel ni toq toq ndox ci biir géej parce que ba jusqu'à présent Dakar dafa xat. loolu laa lay wax c'est-à-dire que doy tey Diamniadio c'est une fierté ñu ngi commencer de petit à petit muy dem. ay fier fierté mais mais ndey di mel nañu wax dëgg rek. boo euh, xoolee nag ministère yi ministère yi ngeen fa yóbbu. waaw ñuy liggéey foofu. non benn exemple la jox ci ministère yooyu noonu déjà ña fa nekk sax dañuy am problème yu métti. restauration bi ndox bi et cetera donc da ngeen a créé benn ville nii rek mais am na lu bëri loo xam ne ay difficulté la. ci àdduna mm. bu ñu créé te départ bi amul ay difficulté mm. difficulté d'installation mais au moins dafa am accompagnement ci loolu terre baa ngi ñëw. Mm. ci loolu yu nga xam ne mu ngi mu ngi si jam ñaajo mu créer une nouvelle ville réew yëpp ku ñëw ku ñëw ku ñëw Dakar il y a dix ans il y a cinq ans il y quatre ans ñëwaat tey mais da lay wax ni Dakar régénère Dakar est en train de mais lu koy indi mais nag loolu moo tax ñu am ay mesures d' accompagnement mesures de désengagement yooyu loolu laa la wax mais foofu à la kulli foofu la jëm jam ñaajo mais danañ demaat aussi yeneen danañ demaat ci yeneen dëkk jàpp nañ ni tey ci ay dëkk yu mel ni Lompoul war nañ fa def une une dégg naa fa démultiplication des des des des pôles da ngeen ko démultiplier mais euh, est-ce que tey jii nii am na lu concret lu ngeen fa teg. <coughs> mais loolu bëgg ñu teg fa d'abord un la création des pôles urbains répond à cette volonté d'aménager le territoire te président dafa avant loolu gis na avant loolu dafa teg ay lu nga xam ni ci yoonu yoonu liggéeykaay bi dafa ñëw def plan national d'aménagement du territoire mu def ko loi ñu wote ko assemblée nationale tey. fii ak vingt cinq ans fii ak trente ans loo war a def Kaffrine xam nga foo ko war a defee ak na koy defee loo war a def ci région de Dakar xam na noo koy defee ak na koy defee mu ne lépp lu ñuy def ci réew mi léegi nañu ko inspiré ci plan national euh, euh, d'aménagement du territoire léegi boo ñu jox bu ñu lay jox léegi lu mel ni plan d'urbanisme ou même plan directeur d'urbanisme da nga koy sukkandiku ci plan national d'aménagement du territoire mais aménagement boobu justement